الحمد لله الذي الحمد لله الذي بسط خيره وإحسانه في هذا الشهر الكريم وجعله موردا للعباد يغتنمونه للوصول إلى النعيم المقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم أيها المستمعون الكرام لإذاعة سفينة FM في 98.2 axukum wa sadiqukum imam Abu Bakr Mbodj yaqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki auditeuru Safina FM seen mbokk seen xarit imam Abu Bakr mbooj moo ñëw ak yéen ci seen émission makaarimul axlaaq ñu koy def talaata ci ngoon bu cinq heures jëm six heures ñu jéggulu retard bi di sant borom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne moo tàllal ay yiwam akuk rafetalam akuk mbaaxam akuk tabeem ci weeru tedd wii ñuy wax weeru koor mu def ko weer woo xam ne rootukaay lay doon ci jaamam yi bu ko defee ñu ciy profitoo ngir mën a àgg ba jot ci xéewalu yàlla yi nga xam ne dafay sax te du fi jóge mukk ñu sant borom boobu tabaaraka wa di seede amul benn buur bu ñu war a jaamu budul moom moom mi nga xam ne mooy borom ngëneel yu màgg yi seede ne itam soppeem ba xaritam ba di suñu soppe seydina muhammad sallallahu alayhi jaamam la ndawam la muy yonent bu tedd ba yal na yàlla dolli xéwal ci moom te musal ko ak i ñooñam bu ko jafee ñu xam ne tey ña ngi ci weeru koor ña ngi ci fukki fan yu mujj yi fukki fan yu mujj yi nga xam ne mooy fukki fanu goreel nit ci safara bi ñu jógee ci fukki fani yërmande yi di ñaan yal na yàlla wesaare yërmandeem ci mboolem àdd ci kaw àdduna bi yépp rawatina ci réewi jullit yi xaasatan suñu réew mii di ñaan borom bi tabaraka taala njéggalam ndax fukki fan yi njéggal yi itam romb nañ ko te ñu koy ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc yépp yu njëkk yéeg yu mujj yu feeñ yéeg yu nëbb yi ñu xam ak yi xamul yu mag yi ak yu ndaw yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu waxee ne na ngeen di lu ci def lu baax ak di ko wax di jokk seenu mbokk te xam ne kenn ci yéen jëfam mënu ko yóbbu àjjana bañ ko laajee ne ko yow sax daf ne man sax ñu ne ko lan moo mën a yóbbu kon nit àjjana bu yow bu dee say jëf mënulaa yóbbu àjjana mu ne illaa an yataxammadahu llah bi maxfiratihi wa rahma lu dul rekk yàlla muur la malaanum njéggal ak yërmande kon nag comme weer wi bu la ci yàlla jéggalee yërëm la ci rekk li ci tes mooy mu goreel la ci safara yal nañ yàlla goreel ci safara ci fukki fan yu mujj yi bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom day dafa jikko woowoon melook melokaan yoo xam ne mooy melokaani jikko ju rafet te yàlla day ku tedd la te dafa bëgg ku tedd waaye yàlla dafa tabe dafa dafa bëgg ku tabe yàlla ku bari yërmande la ku mën jéggle la ku mën a baale la mu bëgg itam koo xam ne dafay baale di jéggale kon ni ko yàlla làmboo la bëgge itam ay jaamam làmboo yërmande làmboo njéggal làmboo baale moo tax dañ ñaax toujours ci weer wii nga xam ne mooy weeru koor nga xam ne daanaka ma ngi commencé di ñu tàggu ñu bari luñ ci def ci xeeti jaamu yàlla bi ci surtout nag lii ñuy tudde as sadaqa muy sarax ndax moom fa innaha zillukum yowma alqiyaama taxikum xarran niiraani ndax bu yowmal qiyaamee bu ñu taxawee di ñu régler ba nga xam ne asama jant bi dañ koy wàccee ba boo dendeeg nit dégg ak yuuram ni muy wañaxe mooy ni muy baxe lenn rek moo la mën a musal ci tàngoor woowa mooy sa keru sarax bu ko defee nag sarax loolu rekk doyoon na ci lu waay mën a am rekk génne ko sarax waaye itam noonu la amee jeexital itam ci balaa boo xam ne dafa waroon a wàcc ci sa kaw wala mu wàcc ci sa dëkk wala ci sa réew sarax ya ñuy génnee tax maanaam sarax ya dàq balaa ba waaye yemul foofu itam pay gi nga xam ne moom la la ci yàlla di fay moom itam rekk doy na ndax yàlla ma ngi wax ne képp koo xam ne ana kan moo may lebal ba ma fulal ko fay ko ko moo tax mu ne misaalu ñi nga xam ne dañuy génnee te yàlla rekk tax ci seen alal daf leen a melal ne koo xam ne dafa jëloon benn fepp dugub ji ko ci suuf mu génne ay ngub juróom-ñaari gub gub bu nekk génne juróom-ñaari fepp ba pare yàlla teg ci ne nag may te itam man nu ma neex rek laay multiplier kon boo demee ci téere ibnu qayim muy bi nabi maanaam jubug yonent bi di jàngal naka la doon dunde sallallahu alayhi wa ci weeru koor mu wax ne bokkoon na ci jikkoy yonent bi sallallahu alayhi ci weeru koor mu bari woon lu muy def ay jaamu yàlla yu wuute ndax jibril daf daan ñëw di jàngandoog moom alxuraan ci weeru koor waaye saa yoo xamante ne tase woon nag jibril dafay ni muy tabee ci ay yiwam mooy gën a gaaw ngelaw loo xam ne dafay riddi ngelaw lu calomer yonent bi nag moo gënoon a sallallahu alayhi wa gënoon a tabe ci nit ñi waaye li mu doon tabe tabe bu weeru koor ñëwee nag ci lay gën a tabeeti ba ñépp xam ne kii daal ku tabe la ndax daf ci doon bari lu muy def lu rafet bari ci woon lu muy sarxe bari woon lum ci jàng alxuraan bari woon lum ci julli bari woon lum ciy tudd yàlla wal itikaaf ak yitam sax fukki fan yu mujj yi sax far daf daan maanaam takk ndiggam ba pare sori ay soxnaam dëkk rekk ci jàkka ji du génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne kaana sallallahu alayhi wa sallam azama annaasi sadaqatan بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه خليلا كان أو كثيرا صلى الله عليه وسلم يننت بنينا مو غنونا غنى ري لومي سارخي تي لو خامن يالا تك نكو تي لوخوم موم دي لومو يور لومو باري باري boo ko laajee du ne lii kat ëpp na waaye lu mu néew néew yitam du ko xeeb boo ko laajee daal loo ko laaj mu jox la ko kenn mësul ñëw ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu yor mu bari walla mu néew mu laaj ko ko lu dul ne rekk daf ko yëkkati jox ko am na benn saxaabi yonent bi dafa amoon benn maanaam manto bu rafet muy bu bees mu sol ko rek benn saxaaba génn ne yonent bi ah sa mbubb bi da dafa rafet aka neexoon nga may ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci néeg bi rek lem ba mu jekk mu ñëw jox ko mu ne déet mu ne ko aha kay jëla kii moom mooy ku tedd ki moo tax da daan joxe joxe koo xam ne daawul ragal ñàkk waaw ne liikat bu ma ko joxee duutuma ko am déedéet ndax moom daal joxe mooy li mu gënoon a bëgg sarxe yonent bi buñ doon seet li mu gën a bëgg mooy xëy sarxe ndax moom nim daan kontaane ci buy joxe buy jël sax daawul kontaane noonu maanaam buñ koy may buy maye ni mu ciy kontaane buñ koy may sax du ko kontaane noonu moom daal dëgg-dëgg mooy ki gënoon a tabe ci yiw te itam moo gënoon a ak tabem daal kenn mënu ko woon a takk ñu gis ne yéen mbokk jullit yi buñ waxee ne maanaam weeru koor ak sarxe dañoo lëkkaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna saa'ima tusalli alayhi al malaa'ika ida akala indahu xatta yafraxu wa rubbama qaala xatta yashbacu rawahu tirmisi yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku woor maanaam malaaka yi dañuy ñëw di julli moom bu fekkente ne nit dafa ñëw dafa invité nit mu ñëw invité ko ndogu nee na malaaka yi dañuy ñëw di julli ci moom di ko ñaanal njéggal ak yërmande ba ba ñuy pare wala boog ba kookoy suur rek tànk a ngi lekk rek malaaka yi yow ña ngi lay ñaanal yow mi ko jox li mu lekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi pour ñaax jullit yi pour ñuy do sarxe ci weeru koor ak di ci joxe ñam moo taxoon mu ne képp koo xam ne danga fekk ko oor nga jox ko lu mu ndogo neena yàlla dana la fay lu tollok lañ ko jox ci journée bi te yow du wañe ca mom la muy am dara dara dara kon nak saraxe dal dañuy xamné da fay tektale ni ki ku gëm yàlla la te itam nak sarxe lay lay doon ëlëk bu yowmal qiyamé manam da fay wone ne ki ku gëm yàlla la ki koy def ndax mu naafeq du nango joxe ndax gëmul ne yàlla mi nga xam ne moo wax ne génneel joxe man ma wuutalal la ko naa fekk gëmul loolu moo tax du sarxe du maye moo tax bokk na ci sarax njariñam sax nag ne tu tudaawi amraadal qalbi wal badan xaala sallallahu alayhi wa sallam daawu mardaakum bi sadaqa manam sarax da fay faj febaru xol ak febaru yaram motax daf dan wax sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen di safara seeni way febar ci sarxe wala bo febare yow ling koy safara moy dil genné sarax di ñaan yàlla mu defal la ci tan kon sarxelu am jariñ la li mu wax ne dafay saafara feebaru xol ndax feebaru xol ya ca ëpp ya ca gën a bon moom mooy iñaan ak soxor ak nay te yooyu yëpp sarxe da koy dindi ndax ku iñaan doo joxe parce que danga yéenewul nit ki lim am kon boo dee sarxe rek day dindi iñaan ci yow soxor yitam contraire mooy yërëme bari yërmande képp koo xam ne yaa ngi sarax nit booba yërëm nga ko kuy jox nit rek booba yéene nga ko jàmm day dind ak soxor kon ci doomu aadama dafay dindi day joxe itam maanaam kon dana dindi iñaan dana dindi soxor dana dindi nay ndax ab nay du joxe bay sarxe kon muy benn feebar yitam daf koy dindi waaw ndax dafay dàq balaa ak musiba te itam dafay tax daf lay xañ ay noon yaxya alayhi salaam daf doon wax wa amurkum bi sadaqa fa inna mathalu dhalika ka mathali rajulin asarahu al aduwu fa awthaquu yadahu ila unuqihi وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم yaxya alayhi salaam daf doon wax dama leen di digal ngeen di sarxe ndax sarxe day misaalam dafa mel ne waajoo xam ne dafa defoon benn deli maanaam ñu koy àtte daa di jël njoñ ko maanaam jël ay loxoom ak takk ko ci loos wi baa di koy tër pour bëgg ko rendi nee na bi ñu ko ëndee ba bëgg dóor rek kenn daa di ne man day dama koo bëgg jot waaw dama bëgg daal jot ko ci yéen bu dee lu léew la ma joxe ko bu dee lu bari la ma joxe ko nee na mu daa di jël boppam daa di joxe ne man day dama koo joxe sama bopp pour ngeen maanaam sauver ko kon nag xam ngeen ne koo xam ne jaral nga ko joxe sa bakkan loolu day ën dindi ak noono da dëgg sarax daal moom dafa bari jeexital te itam dafay dàq bala ñu ne as sadaxa tasir lis sadaxa tasir رن عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم أو من كافر gis nga sarax moom ni muy dàqale balaa ab jullit noonu lay dàqale même ab saay-saay wala ab tooñkat wala ab yéefar buy génnee sarax loolu daf koy génneel maanaam daf koy dàqal ay balaa moo tax sax nga gis ne kéefar yi ñi ci gën di bari lu ñuy def ay gestes yu rafet da ngay gis ne yàlla toujours de leen di yokkal seen wërsëg ndax sarax ya ñuy génnee doonte ko nag yéefar lañ doonte ko nag tooñkat lañ doonte ko nag kàccoor lañ itam jëf gi nga ko jëf yàlla du ko neenal moo tax daf la koy fay ci àdduna te itam sarax dafay wone ne yow mii day li yàlla dëële ci infaaq fi sabilillah maanaam génnee sa ñaq joxe ko ngir yàlla sarax daf koy prouve daf koy dëggal te itam maanaam yàlla moo tax mu ne alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bis bilfaxsha الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ci suuratul baqara 268 من الشيطان دي فنجن طول بنجن بجيجين سرخ رك دف لي نان rek ah! bu fekkente ne day ko la laaj rek nga jox ko da nga dem ba duutoo mën a am loo joxe di la digal itam ñaawteef maanaam bëgg na di la won ne ku tiyee rek da ngay am waaye kuy joxe ci ñàkk nga dëkk yàlla nag moom lim leen dël mooy bu ngeen génnee seen sarax dana leen ca jox njéggal ba pare itam defal leen ci ngëneel yu rëy a rëy ba pare nag boo génnee joxe moom mu wuutalal la ko ki génné sarax nak mom boba gëm na ne limuy joxe ni muy génne nonu lay dellusee kële nak ki nayin mom dafa jàpp ne bu ko génné rek ñak ko kon gëmul li yàlla wax ne bu ngeen joxé rek ma wuutalal leen ko waye ki génné sarax mom gëm nako motax moo tax wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadri fa inna allah yaalamuhu wa ma min ansaar yàlla ne lépp loo xam ne génne ngeen ko ci ab dépense wala ngeen nisër ko ci nisër bu rafet rek nag yàlla moom xam na ko bu ma amee nangam day danaa ci joxe nangam bu ma amee lii danaa génnee nangam loolu sax yàlla xam na ko te nisër boobu nga ko nisër rek yàlla fay na la ca benn jëf boo ko defee nag mu fay la ko li ko commencé ci fukk ba juróom-ñaar fukk ba lu ko neex juróom-ñaar téeméer yi waxoon sànq moo tax ابن كثير مهم دفن مهما انفقتم من شيء فيما امركم به واباح لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الاخر بالجزاء والثواب وما انفقتم من نفقات بوب نيو لا ابن كثير نمكو فيري نينا لب لو خامني ген نين كو جوخيكو تي لي لين يالا ديغال مو خام زكاه moo xam sadaqa la moo xam lu mën a doon di te yàlla daganal ko ci yéen te digal leen ko moom ci boppam moo leen koy wuutalal joxeel rek ma jox la waaw anfiq unfiq aleyk waaw nee na da leen koy remplacer ci àdduna dolli waatal leen ko waaye bu ngeen ñëwee àllaaxira itam mu defal leen ko pay ak tiyaaba yoo xam ne buñ demee ba mu tàng wax naa leen ko sànq ji début bi ne ci seen suufu keru sarax ngeen di keru moo tax kon ñu xam ne dal yàlla moo ñu digal ñuy sarxe dafa wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko maanaam xuud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ci suratu tawba 103 mu wax yonent bi ne ko jëlal ci seen alal sarax boo xam ne daf leen di laabal ba pare daf leen di selal manam day laabal seen xol ci jikko yooyu ñu waxoon sànq iñaan ak soxar ak nay ak yooyu yépp daf koy génnee ci yéen ba pare itam nag mu raxas maanaam alal ji ba lépp loo xam ne da ko doon yàq rek mu falan ko bam dañ يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس او قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد فكان ابو القير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة ولو بصلة رواه ابن خزيمة yonent bi sallallahu alayhi wa def ne nit ku nekk day bu yowmal qiyaama bis bi nga xam ne ci la yàllay tàqale nit ñi maanaam ci la leen di àtte nee na ku ci nekk ci sa suufu sarax rekk maanaam ngay taxaw ba ñuy àtte ba pare te wax nañ la bu boobaa nga xam ne tiitaange ga fa nekk maanaam ku seen sa mbokk rekk danga koy nëbbutu yuur yii di baax ñaq yi di la wër ba nga xam ne daanaka danga ciy lab abul xayri nee nañu ne moom day moo tax daawul xëy benn bis boo xam ne sarxewu ca dara doonte ko nag benn mbiskit wala am yor soble sax sarxe ko moom dana ko sarxe moo tax nit ku nekk war na lu mu néew ne bu xëyee mu sarxe maanaam euh, kaaru mburu manam bu mburu di jar fukk 150 lu mu new new jour bi dal waron nga ci 5 sarxa ci 50 francs waaw bu ko defé nak sa sarax sarxe nga xamné ne àqu sarax wàcc la ibnu hajar ci daf don wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daal dafa wax ne am na juróom-ñaar yoo xam ne bu yomal xiyaamee yàlla dana leen keral ci suufu keram bis bi nga xam ne amul benn ker bu dul keru yàlla gi bokk na ca waajoo xam ne buy sarxe ci ndeyjooram jooram càmmooyam sax du ko yëg maanaam ki nga xam ne buy dimbali maanaam mbokkum jullitam wala mbokkum deretam surtout nee na lam koy jox dana ko jox ci sutura ba nga xamne manam maanaam jor bi ko joxe sax chamoy bi mom du xam lu ci ne waxuma lat nak benen bindef diko ko koku neena na bu yowmal qiyamé ba ker jafé lol ñoñu mom yalla mom mo len di wo taxawal len ci sofu arash bu ko defé sarxe mom dafa bari ñari yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf daan wax ne ittaqul naara walaw bi shiqqi tamratin muttafaqun alayh na di moytu safara te ragal safara moytu ko doonte ko nag benn cëggub tàndarma sax na ngeen ci maanaam dawe safara maanaam wan la ne benn cëggub tàndarma man nga ko sarxe rek yàlla dëgg ci ba yóbbu la mu ne man istataa minkum an yastatira min an naari walaw bi shaqi tamratin fal yunfiq aw fal yafaal nee na képp koo xam ne man na mu aar boppam ci safara suturaal boppam ci safara donte ko nag benn daggitu tàndarma sax na ko def de bum ko xeeb pour won la ne rek bul xëy mukk te sarxe woo dara donte ko nag benn tàndarma la sax waaw te loolu nga moytoo ko safara ëllëg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi won ne ab sarxekat malaaka yi dañuy xëy di ko ñaanal bus bu ne moo tax mu ne maa min yawmin yusbixu alibaadu fiihi illa malakaani yanzilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma ati munfiqan xalafan wa yaqulu al axar allahuma talafan muttafaqun aley neena amul benn bis boo xam ne maanaam jaam yi dañuy xëy lu dul ne am na ñaari malaaka yoo xam ne dañuy wàcc kenn ki moom lenn rek lay xëy di ñaan yow yàlla sa jaam bii nga xam ne lu mu am bokk kook ay mbokkam bokk kook fuqara yi masakin yi ak ñi nga xam ne amuñu yow yàlla sa jaam bii day yal na ko jox lu mu wuutale ki ci dess mom day wax ne rek yow yalla sa jam bi nga xamne dafa nay ba limu mu yor jaapaar na ne bu ko joxe mu jeex yow ki de yalla nang ko ko wuutaleeg ay tolof tolof muttafaqun alay bu ko defé lol mo doon sen émission makarimul akhlaq ku bëgg dugg nga woote 88 628 10 95 88 628 10 95 ak sen mbokk imam Aboubacar Mbodj bu ko defee nga gis ne kon ñaanu malaaka googu rek jar na lépp loo am rek boo xëyee suba nga jox ci ndax nga bokk ci ñaan googu yàllay wax ne malaaka bi di xëy di wax ne yow yàlla kii nga xam ne lu mu am day joxe ci sarxe ci yàlla na ko jox loo ko wuutale waaye ki nga xam ne moom bu xëyee rek day téye rek di konte di dajale rek toujours na ko ciy defal rek ay tolof tolof ordonnance la koy jënd ji da koy fajoo ji mu xëy suba mu lakk mu xëy suba ñu sàcc ko wala ñu triande ko du ci jóg mukk ki nga xam ne moom lu mu am deñ moo tax mu ne wa man kaana min ahli sadaqa du'iya min baabi sadaqa maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaam àjjana dafa am bunt boo xam ne dañ koo réserver ñi nga xam ne maanaam ay sarxekat lañ wax nañ ne àjjana jooju comme nii ci studio bi ñi ci biir dañuy seen ñi ci bitti ñi ci bitti di seen ñi ca biir nga xam ne xéewal ya day naat ki nekk ci bitti moom day ñeeka ca biir mu ne àjjana jooju kenn du ca dugg bunt ba ñu cay duggee nag ñiy sarxe rek la ñu naan ay wa jàll leen buñ jàllee ba jeex ñu ferme ko ku dul sarxe doo ca jaar moo tax kon moo tax ñu tudde ko maanaam buntu sarxekat yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi sallam wax na ne yàlla dafay wax ne anfiq yabna aadam unfiq aleyk yow doom aadama joxe rek li nga yor li ma la jox te man mi la ko jox duma jeexal mukk joxe loo joxe rek man man ma di la dolli di la gën a jox kon nag joxe sax day gën a yokk wërsëg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ne maanaam jigéen ñi ne min azimi waa maa yu najji nisaa min an naar qaala sallallahu alayhi wa sallam tasaddaq na fa inna akthara kunna xatabu jahannam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax ne ah yéen jigéen ñi di leen sarxe de ndax ñi ëpp ci mattum jahannama ay jigéen lañ xam nga li ci ëpp mooy ah jëw bi rek ak maanaam xeeb seen xeebali borom kër ak ak yu bari yoo xam ne càggante gi moo tax mu ne ah ña fa ëpp day jahannam ay borom musóor lañ mu ne kon nag na ngeen bari lu ngeen di sarxe ndax du ngeen ca bokk kon nag moo tax jigéen ñi moom wax dëgg yàlla xadis boobu dégg nañ ko ah sukkari koor yeeg ndogu yeeg yépp nag ñoo ci man yal na yàlla defal leen ko muy seen jot ci safara moo tax sarxe daal dafa baax surtout bu fekkente ne danga ko booleek yeneen yeneeni jëf yu baax ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa mas a xëy saxaaba yi daje mu ne leen waaw tey kan moo ci xëy woor abu Abubakar Saddiq yëkkati loxoom ne ko man de dama woor mu daal ne waaw tey moom kan moo ci gunge néew dem ci ab rob Abubakar Saddiq radiyallahu anhu yëkkati waat loxoom ne ko waa man de tey dem naa rob mu ne waaw tey kan moo ci jox miskin mu lekk ñëpp ne teg Aboubacar ti loxo bi ne ko ah man de tey jii joxe na ab miskin mu lekk mu ne waaw yéen tey kan moo ci seeti ku feebar ñëpp ne teg Aboubacar yëkkateeti loxo bi ne man de bi ma xëyee tey seeti naa ku feebar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne majtamaana fi imriin illa daxalal janna rawahu muslim ñeent yii day kenn du xëy def ko ci bis lu dul ne day dem aj dana dugg àjjana kon nag ah kon dal salax am na solo xëy woor sarxe ci dem ci rob leel ci miskin yonent bi nee na ku dajale yooyu yépp ci benn jour nee na boo dee dem àjjana yal nañ yàlla xiir ci def lu baax ko defee dëgg-dëgg ñi nga xam ne yàlla may na leen koom nañu xam ne weer la woo xam ne daal weeru def lu baax la weeru jokk mbokk la weeru sarxe la weeru yërëma la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ne moo gënoon a tabe ci doomu aadama yi waaye ak tabem bala ñu ko doon xam daal dëgg-dëgg weeru koor bu ko defee kon ñi nga xam ne yàlla daf leen a may ay xéewal nañuy góor góorlu te xam ne weer wi dal dafa ah asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum rëcc na mu ne inna fil jannati xurafan yura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuruha xaaru liman hiya liman tayyaba alkalaama wa at'ama altaama wa adaama alsiyaama wa salla billeyli wannaasu niya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne am na ci àjjana ay appartement yoo xam ne boo nekkee ci biir di seen ñi ci bitti ñi ci bitti itam di la seen ñu ne ko ah àjjana yooyu moom gën a rafet ñan ñoo fay dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy ñi nga xam ne lu wax lu baax rek lu rafet rek la ñuy wax ci seen lamiñ lu rafet rek ak ñi nga xam ne wa yutcimuuna taama ala xubbihi miski waaw maanaam wa yutcimuuna taama ala xubbihi yatiman wa miskinan wa asira maanaam ñi nga xam ne dañuy joxe ñam manam ci kuko bëgg fekk ñoom lañu bëgg la gën neex ca ñam ya ñu yor lañuy joxe manam yatim baak miskin baak manam jirim baak ka amul daraak ña nga xam ne sax dañ leen a denc ñu nekk ay prisonnier ñuy togg di leen yot mu ne ak ñi nga xam ne fu ñu toll rek ña ngi woor te ba pare di julli guddi fekk nit ñaa ngi nelaw mu ne ñooñu daal ñooy dëkke foofu moo tax ñi nga xam ne dañu yàlla da leen a may wërsëg 88 628 10 95 88 628 10 95 bu ko defee moo tax euh, nañu góor góorlu bu baax ndax nay amul njariñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ne waaw yéen kan ci yéen moom la alali way doonam gënal alali boppam ñu ne ah kenn ci ñu mu ne li nga moom mooy li nga xam ne danga koo dawal maanaam li nga sarxe walla nga maye ko walla nga génnee ci zakat loolu kay nga moom ci alal ji waaye li nga tiye moom say woy donoo ko moom parce que boo dee ñoom dañ koy doon bu ko defee nag nañu jéem a bàyyi suñuy loxo muy dem te bañ a nay bu ko defee salaamaaleykum allo waaw ah xam na réseau bi moo am pro allo allo ñu ngi lay dégg de waxal waaw bismillah waay ñu ngi lay dégg waxal <laughs> dafa mel ni kooku Mamadou Ndiaye la woon mhm. xam naa réseau bi moo am problème waaw mais ñu ngi gërëm bu baax nag mhm. bu ko defee nañu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf doon wax ne manam dub julit ko xam ne da ngay lek ba sour di tour di desal te fekk ne sa dekkando mom ma nga fande wala ma nga diñe bu ko defé nak nañ lu bu baax te xam sarax dal dana allo salaamaaleykum mhm. dana dàq musiba di dàq bala te dana yokk yitam nit fan maanaam dana guddal fan yitam te yitam dana saafara feebar moo tax am na benn xissa boo xam ne dañ koy wax muy dafa amoon benn koo xam ne sawu la woon benn sawu ku dëkk ci Arabie Saoudite yàlla def mu feebaroon feebaru cancer du sang nga xam ne cancer du sang yàlla nañ ci yàlla musal muy feebar boo xam ne bu doy waar la di dem di defi ay chimio di ci dépenser alal ju bari te du tax yitam sax nag nga mën a am wér xanaa dund rek dund wereyaan desandi fi léegi mu am benn indonésienne mu doon wut koo xam ne daf ko bëgg mu koy dimbale ci kër gi ndax ku feebar mënuloo ji taxawu sa bopp mu bëgg koo xam ne daal daf koy dimbale ci kër gi mu waxaale ak benn indonésienne léegi bañ d'accord mu ñëw commencé liggéey bi mu ñëwee di commencé liggéey ah bi mu fi defee une semaine ki nga xam ne mooy patron seet lu ne daal ndaw si moom dafa bari lool lu muy dugg ci toilette yi ma xam naa moo foog ne baadu kii dafa jabet walla dafa am feebar parce que daanaka maanaam trente minutes yu ne mu dugg ci toilette yi génn trente minutes yu ne mu bàyyi liggéeyam dugg génn nee na bi nga xamante ne woo na ndaw si ne ko waaw yow dangay dugg ci toilette yi te boo duggee danga nga fay yàgg lo waaw lan moo la dal ban problème nga am ndaw si ne ko ah man de wax dëgg yàlla feebaruma waaye boo gisee may dugg ci biir toilette yi dama feebar dama am doom bu yàggul maanaam bi ma amee doom ak léegi sax dama am doom rek mu am quinze jours comme dama defoon demande pour liggéey ñu wooma ne ma wutal nañ la benn poste fii ci Arabie Saoudite ah léegi nag comme liir bu tooy laa yor samay ween dafay sotti ndox meew te xam nga ne bu ma ko dul rat mën na maa indil feebar walla boog mën na maa yàqal sama liggéey léegi nag ma dénkaane woon sama doom xam naa ce wàcc ko ca yaayam ah pour ñëw daan si dooleem parce que nee na bu ma fa toogee itam du ma am lu ma dund du ma am lu ma dundale sama njaboot te comme bu ma ñëwee fii nag danaa mën di liggéey di leen yónnee loolu daal moo tax may dugg ci biir toilette yi ne du dara bu ma demee ci biir nag rat sama ween yi ci biir lavabo bi ba mu woyof ma génn ndaw si waaru ci yàlla daadi di nekk ah daadi xool contrat bi ñu amoon comme deux ans la mu daa woote benn ci maanaam benn ñiy jaay billet d'avion ne ko dama bëgg nga daggal ma benn billet Indonésie léegi mu daal di xool li nga xam ne contrat bi deux ans yi li mu ko waroon a fay par weer mu calculer ko lépp daal di ko koy defal ci enveloppe daggal ko biyee ne ko dama bëgg nga ñëw dellu Indonésie li nga contrat bi fay naa la ko nga dem li wajhillah léegi bi nga xamante ne xale bi dem na rek mu am rendez-vous ak médecin bi xam nga booy dem da nga yóbbaale sa analyse du sang mu dem docteur bi xool gis ne benn taux zéro moo nekk ci cancer bi mu waaru ne waaw est-ce que jaawale wuñ kon tibb yi woo ndaw si daal di ne ko man de dama waaru daal di koy bindalaat analise ne ko dellul nga defaat mu dellu defaat mu indiwaat même résultat yi mu woo ko bureau ne ko man wax dëgg yàlla daal dama waaru parce que man yow sa taux de cancer bi te man joxuma la fi garab goo xam ne xam naa ne war na laa mën a faj te itam gis naa ne ñaari analise def nga ko ak écho yi nga def yëpp dafa wone ne dal yow benn toq cancer nekkatul ci yow man dal dama xamul lan foo jaar ndaw si ne ko man de jaaruma fenn xanaa day bu fekkente ne lenn moom a faj maanam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax man gëm naa ne moo wax ne daawu mardaakum bi sadaqa na ngeen di saafara seeni tawat ci sarax daal di koy nettali xissa bi ci indonésienne bi ne ko lii day bu fekkente ne daal dara faj na ma xam naa ne lii moom moom ma faj sadaqa allahu la maanaam wa maa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa mooy yonent bi lu mu wax rek xanaa kay nga gëm ak nga bañ a gëm nga testé ak nga bañ a testé waaye lu wax rek dëgg la ndax yàlla moo garanti ne lu mu wax rek maa ko ko wax loo kon nag yéen mbokki auditeurs yi doon déglu bok émission makaarimul axlaq ak seen mbokk Ababacar Mbodj na waxtu wi ñu mayoon dafa jeex ñu nuyu suñu technicien Samba si di nuyu suñu directrice soxna ñuma di nuyu suñu sëriñ Thierno Hamidou Yorobaan di ko ñaanal yal na yàlla yokku suturam yokku barkeem may ko gudd fan may ko wér te li mu bëgg te bëggal ko diine lislaam ci wesaare ko yal na ko yàlla yombalal di nuyu suñu mbokk daara Cerno Sëriñ Mor Diop bépp ci parcelle suñu daara maris di nuyu suñu auditeurs yëpp Mamadou Ndiaye ma ngi doon bëgg a dugg ak ñeneen sëñ aadama Ndiaye baawo baab waaye ñoom ñëpp mënuñu dugg di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.